voilà euh, Bougane Gueye Dany moo nekk ñoom ñu noonu xamante ni moom mooy euh, Barthélémy Dias également comme ni ngeen ko gisee ànd ak Mbow euh, mais tey dafa mel ni nag ki nga xamante ni moom mooy Anta Babacar Ngom moo ko moo ko remporté ci depuis boobu ba léegi fu mu rek ay dégg ñu koy yuux Anta Anta donc séance bi audience bi reprendre nañ ko donc moo tax ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy jaas ak délégation Assane Diouf ak ki nga xamante ni moom mooy Abdou mbaw ak Thierno Bocoum voilà ñu ngi noonu dañ leen di visiter donc euh, ku ci nekk boo ñëwee dañ lay visiter xool ndax euh, andiwoo dara Assane Diouf yëpp ci noonu ko gis euh, mbokk internet yi ñuy suivre ci seen Teranga TV gis ngeen ni voilà Assane ko di nekk noonu noonu di di egg moom tamit donc voilà sax naa ngeen gis ni. surveillance bi reprendre nañ ko mais El Hadj na si biir ànd ak euh, nga xamante ni ni avocat Guèye Dany moo fi indi mais on a aussi la présence de Anta Babacar Ngom depuis tout à l'heure ñu ngi koy clamé Anta Anta Anta donc comme vous le di ñëw fraîche euh, quand même macha allah gis nga di tàllal loxo yi euh, en tout cas bu nga euh, confiante nga moo nekk nii comme di tag nga moo nekk noonu voilà moo nekk noonu di ñëw di dugg dañu xool ndax li ngi nuyu bi voilà nee na mi ngi nee na mi ngi ndax moom dañ koy passé visite quoi donc voilà xam naa nag moromu jigéenam moo koy moo koy passé visite waaw moromu jigéenam moo koy moo ñëw taxaw ci kanam pour pour extrait mu jéem a xool waaw c'est normal jigéen jigéen a koy visité góor moo koy donc voilà yéen ñi nga xamante ne ñu toog